dama gaay jàngul xam ma kañ ko taaway ko ndaxte mu dolli may may géwal sañ naa wëri kañ boromam ma nettali fi jaloore te sulli fi ndam te wax xar baax yu tax ngeen xam boromam te xejji ay fal xam nañ maqaamam ca xar baax yaag ca may yaa xam boromam ca walli yaag ca xawsu ya sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daawi tag boromam xam yàlla ak ña xam yónnen ca baawan ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boromam wax ji moo wax ba ko noon yo ku dingat wax ji mu juyoog boroomam ca géej ga la làmme ba fekk muy géej mu tànk leeri xëy bu ya ca géej ga la dàqe ki gaayam ba ñuy maaj muy taxaw fara tey boroomam ca géej ga la moome mbootum kun ci baatin bu noon ba fa beekanoo mu ni kun boroomam ca géej ga la Bàmba tijjee ndam bi xam-xam ba faf yor àll way xalim ak boroomam ba xàgg ci yàlla xàgg ci ngan ji yónneen ñu sopp ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee ji xëri bakkan ci ay xat di boole tagg ak julleeg wéetal boroomam ba faf sey mel ne suukar far ci yónneen di moom muy moom ci baatin cey boroomam ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fab kun ñu wammat ruuya jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñepp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ se di yi boroomam mu faf di jant faf tiim ñépp duniya di taalif téere yuy sellal boroomam malaaka ya seere pal gu am fa diiwaan mu fal ay xutbu yuy dee ak boroomam balaa la fa xam ca piyan ros ci baatin nyudi sok dam tamoy jasi boromam tamoy wu taatu yonnen far ci kaw suuf dimbootum kun ci lépp lu soob boromam mu làq ngërëm ci zahir ak ci batin maqaamaam fawqa mbooleem ñoñ boromam sëriñ tuuba di maanaam dex ku dem duy ku bu ne bu génnee xam boroomam sëriñ tuuba dex ku dem duy ku soobu ne bu génnee xam boroomam ku soobu te wey ya feesal ci ay leeram ba faf di duyal moroomam ku soobu te wey ya feesal ci ay leeram ba faf di duyal moroomam ku sóobu dex na xam ndox dof bi yeewul tawattum ndox lewet na ta weex ci biiram ku sàggan sànku faw talab te doo duy te doo set doo setal doo xam boroomam meloy Bàmba ngi waaju xamul na dégloo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 diggéen nekk ruux ci tuskare jox boroomam diggéen nekk ruux ci tuskare jox boroomam di ku ñépp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñépp faale ko moog boroomam di ku mel ne man jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam moog boroomam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baax mu fóot ba mu set tofal mbooloom boroomam meloy kaw yaak meloy biiram dëppoo du dégle lu bon du digle ku dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir bég rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boroomam du jak du rad du le du fatte yonen te xew ci kudul dul du daw ay non du yox yoxi ngir pexem nit du ko ci mbambu ku dul boromam lu mbir ray rëy da koy far dolli angam du yokki du daw di mbeur mu farak boromam du wopp ba tax mu wàññik jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu ër tey baraamam du déggug noot mbaab kàbbar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey boroomam du tab jëbatiim du wuute musul di maamu du gàpparu bis du weer jullik boroomam du yeexal wenn waxtu te la fay faat la koy wax raw na montor mooy boroomam du ñàkk ba tax mu bot di kuréel ya koy laaj du ci xalal lu dul téerey boroomam du dox di tëjoo dëkkaaleem ci ay kër bu weetaa mang ca yunnen mbaa boroomam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 Iram naon ndaw kamal leen batin teral naw mag ba jébbal yafal nay mbër tabax nay kër ci nanya si xamal nañu sàkku woon na ci rew mi taal fay ci la gis kemam cay boromam dëhër ba ni këng nooy ba ni nemm cig wet ka xam gu tar taragal boroomam wayaf ba ni toy yu diis ba gann cig wet lewet ba ni domm saf-sap ak boroomam sawartale fog te yaatu te xir te ngor di tab budul jeele lum xam jox boroomam rafet jëf saf xorom du waxaate réexul bari teggin ci ku mu gis ngir boroomam du xej jëkki seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral di gël la nga xam boroomam du boddi du ñax du janne du xotti saatir dalay yaatal xafal la nga mel ne doomam du boddi du ñax du janne du xotti saatir dalay yaatal xëfal la nga mel ni doomam du matte du jëw du xool warul te du romme du mer du xul ci lu dul boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo du dog war maaki bokkam mbaa boroomam du fàtte du fecci wul lëre mës la war nit du xaddiduna gu yërmande ngir boroomam du bew du baajantu day waro kaware du jek di fakki masam ngir boromam du reta nit du lo du sunnit nit du yakuk der du tas nit ngir boromam da xam ji waji ji koy yónneen la lambo mënee fula la lim ngëneelam fu nuy raaseet waajuy mel ne mi mbër woyof na ci kaw ta diis na ci biir boroomam fu nuy raaseet jant bu dem ci njolloor te leeral yépp gox di kennul boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ne buy wax ku nekk di lux di làkk ku dul boroomam fu nu yiraa seeti kog bu jugaa di romb dërëm ya ci mbirum boroomam fu nu yiraa seeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu nu yiraa seeti kuy gis ahlu badrin di xandak ñoom te dëkkaaleeg boroomam fu nuy raafeeti waajoo xam ne buy way xaraf mu def xaras di ca bég boroomam fu nuy raafeeti waajoo xam ne fu teew ku wopp faj ku dee mu yëggal boroomam ku bañ bi xut bu bay raafi moroomam du gis bu ni ci ji jamonoy boroomam gisee fu ko won ca gaaya weyun ca baawoon takhar nuy nuy jubit du ci ñew moromam ku weddi ba tax mu bëgg ne may moromam na def limu def ta wax limu wax boromam ta dox limu dox ci ga bang wa kongo ci ay nonam te delu ci ci moromam te ku mel ne Seyxi Ibra Faati wa Ahmadu Ndumbi ak lampu ترساتكو من نسيقي إبرفاتي وأحمد نم بأقلام كبرام ترساتكو من نسيقي عبد الرحمن كجد جيمبك مول خمال برامم تسككو لق جغلك سيد مختار كدم بسياري ينن موكي دومم تساخل كم لشيخي بم بساخل تسلل سين خل بنيو خم برامم تسكل لين مبالو فو يجف تتقت لين بدون منا مي برامم تكر نسخل لقيل غنجي ينن تبوم تري مي تخوفر تي برامم te dootu neelaw te day daw soxna yam xam di daw seytaane tey wéet boroomam te bu mu yokkat te bu mu jinnal la muy jëf te bu mu gis tal ci jëf na ragal boroomam te bu mu diingat sëriñ sa te bu mu fayantoo te bu mu bég ngir ku gottil moroomam tabumu di ngat sëriñ sa tabumu fayanto tabumu bég ngir ku koy til maramam tabumu xas nit tabum jëw rambajit tabumu fen bum dogub bok ak maramam takan jihari saxal bakan bakkan ci sang nakar taragal te day xam mbooti xol xam baatinam nit di saafara rag ji di xalam moroomam te bu mu dig leeka xaaye ci wàllu bakkan di woote ci kaw te biir ba jisul boroomam li ngay liñ doy na yow muusa taxawlul ba tey jotagoo lu mat asa kay boroomam li ngay liñ doy na yow muusa taxawlul batay jotago lu lumat asa kay baramam ku dégg ñu way wile nang ma ñaanal ma xam ngërëmam te sax fu ba xam baramam ta def ge walam bu koy way ba may juma wax mu saf ko ta saf baramam ku bëgg di melay bamba ngi setal ku melni moy donay xut ba ku bëgg di mbër meloy bamba ngi seetal ku mel ni mooy doonay xul bëb boroomam allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimi ahmadul xadim wa ummati wa salama tasliman ah jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii boroomam la bu maam Cheikh Moussa Ka yàlla nañu ko fayal Eh, ki ko doon jàng di seen xarit Abdul Xaadir Buso waaye def ko ci ndigalul xaritam soppeem ku baax lool te bëgg sëriñ Tuubaa lool te léppam di sëriñ bi muy sëriñ Abo Mbàkke Basmor eh, ñu ngi ko def tey jii nag yemoo lundi di 7 octobre 2019 ñu ngi ñaan ku ko déglu yàlla na yàlla defal la sànq daal di ne barke Xaadim Mustafaa alhamdulilahi rabbil alamin